sa dëkk Sénégal gi nu bokk jël na Coupe d'Afrique président de la République dajale fi askan wi dajale fi gaynde ngir sàggar leen loo yëg tey Gaston. yëg nii yëg nii yi yeewee askan wi Lions yi ñoo yeewee askan wi askan waa ngi soog di yeeweeku Lions yi leen yeewee waaw loolu rek laa yëg xam naa ne daal. noo dundee Coupe d'Afrique bi ak ndam li. kontaan xam ne nag léegi Sénégal euh, ñu ngi soog di fireeku waxuma la sax yeeweeku mais ñu ngi soog di fireeku nit ñaa ngi soog di nag di. Euh, rassembler cœur yëpp nekk benn xol yëpp nekk benn bu nu sàggan rek ba keneen di ko fóot wala kenn di ko jéem a yàq politique bi nañ ko teg fële. Ah, parce que question bi loolu te gis nañ fi ñëpp daje fi booloo doon ben xàmmeewuñu kenn. non non politique bi politique bi jóg na fi seytaane bu mu ci dugg xol yi tàppewu na na ñëpp ànd nekk benn nangu ndogalu yàlla xam ne président Macky Sall la fi yàlla teg mi ngi liggéey nañ ànd mënu fi nekk éternellement. Euh, propos mais propos ethniciste euh, non promo ethniciste ma am xam nga nit ñi ñooy jaawale ay wax wala ay naafeq yu yu pervertir ay waxu jaamur wala ay euh, politiciens yu fi nekkoon nekk am perte de vitesse amatul woon buzz bëgg buzz mais man ku ma xam su fekkee ni affaire jaaz a tax ngay wax jaaz sama doomu. <laughs> laay laay laay dañuy dañuy. on est avec Aminata Mbengue Ndiaye moom mi jiite HCCT aux collectivités territoriales. de, de, de, de toute façon, aujourd'hui, nous avons la coupe, nous oublions tout ce qu'il y a derrière nous. Le président de, la République euh, du Sénégal, au début de l'indépendance, euh, le président Diouf qui l'a suivi, le président wad également qui était, qui, qui, qui était là jusqu'à quelques années Donc euh, derrière nous, je pense qu'ils auraient tous voulu avoir cette consécration de notre football au niveau national, mais c'est avec Macky Sall qui s'est tombé. Mais je crois que c'est un travail de longue haleine qui a été fait. n'est pas en un jour qu'on prépare une équipe nationale. Et je crois que tout le monde doit se sentir aujourd'hui concerné par cette victoire. En tout cas, nous en sommes très satisfaits euh, par rapport donc, à tout ce qu'on attendait depuis très longtemps. Man damay dikk olof ci tënk rek sa doom jël ndam lu rëy loo yëg tey ñi lay yaa ngi en direct sur Sénégal. li ñu naan fierté li ñu naan euh, euh, lu neex a neex a neex ci xol parce que lii nga xam ni ay ati ati at ñu ngi koy xaar ren ñu koy doog a am duñ cee kontaan man bii président. Euh, Euh, de la République du Sénégal euh, qui, qui, a quitté avant, bien avant Ablaï le président Diouf m'a demandé de féliciter le président euh, Macky Sall, ce que j'ai déjà, ce que j'ai déjà fait. Mais donc, content de le Sénégal est content. ku gis démb li xew ci biir réew mi mun naa ni sax ba ñu gagné coupe ba ndëgë ne li fi xew da ngay xam ni que Sénégal on est un même peuple on est également une même nation te ñun ñëpp yëg nañu loolu ñëpp a ko sentir tey amul benn sénégalais bu nekk au fin fond du Sénégal te sentirul li nga xam ne moom moo fi am man bii j'avais très peur ndax bi may gis di seetaan xale yi le monde qu'il y avait je me disais que fii lu tuuti rek mën na fee indi musiba mais yàlla def na ni ñoom ñëpp ils ont été euh, avec beaucoup de responsabilité dans la cérémonie voilà waaw cohésion bi ñëpp a ko soxla et je crois que du tey rek la ñu ko war a am moment yu mel nii saa yu amee réew mi yëpp ñoo war a daje ñoo war a ànd kooku moom wóoruma wax dëgg yàlla parce que nettali yeggul ci euh, neex xel yeggul ci nettali géntu jàmbur loolu moo tax mënuma cee wax. merci beaucoup merci beaucoup.